Je pense que c'est l'occasion pour nous de nous départir de nos intérêts personnels, aller vers une dynamique de groupe, aller vers vraiment un cadre tout à fait convivial, un cadre communal, départemental, pour pouvoir faire face quand même à ces jougs électoraux qui se dessinent devant nous. En tout cas, à travers cette rencontre d'aujourd'hui, on voit l'engagement des acteurs politiques, on voit l'engagement des leaders politiques, on voit l'engagement des partis qui ont eu quand même à fédérer leurs forces à l'occasion des élections présidentielles. Donc cet acquis, il a été fait comme recommandation majeure de conserver cet acquis-là, qui aujourd'hui est à renforcer et à consolider et à faire de telle sorte que ça puisse quand même refléter les attentes des populations. La commune de Djourbel est majoritaire, il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas se confirmer et se concrétiser par rapport à ce qui nous attend. Aujourd'hui, il va falloir donc travailler davantage et que l'on ne soit pas vraiment très, très optimiste pour nous dire que c'est un acquis qui est déjà réalisé. C'est dès aujourd'hui qu'il va falloir se mettre au travail pour que nous puissions effectivement nous préparer en conséquence et avec engagement et détermination pour pouvoir quand même remporter ces élections-là. Je pense que, peut-être là où je tiens à, préciser, aujourd'hui, Djourbel fait partie des 14 régions du Sénégal. Et il n'y a pas de raison que Djourbel se distingue de son état d'avancement, de son état d'insalubrité, son défaut d'éclairage, son manque d'infrastructure. Et le cri de cœur aujourd'hui demeure le péage de Djourbel. On ne peut pas comprendre une capitale régionale qui aujourd'hui doit être le point de mire vraiment de l'orientation politique de l'État, qui aujourd'hui tarde à réaliser vraiment cette voie qui doit pouvoir décerner l'accès vers notre ville. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc cela témoigne à quel point les Djurbellois doivent prendre leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de partis politiques, il ne s'agit pas d'associations. Il va falloir mettre Djourbel devant pour pouvoir quand même lui permettre d'avoir un avenir radieux. Donc c'est en cela que moi, personnellement, à mon nom personnel, je salue cette initiative. Ah, vraiment, encourage les gens qui ont eu vraiment l'ingéniosité de l'organiser et de faire de telle sorte que les Djourbelois puissent se réunir autour de l'essentiel. Euh, mon initiative, c'est que parti opposition bi pour ñu mën a ñëw waxtaanee nous nga xamante ne bi moom mooy euh, soxlay njaareem waxtaanee aussi li nga xam ñun ñor nañu ci walum activité développement local ak thème bo xamné ñing ko doon woyé quel type de quel leadership pour une bonne gouvernance locale ñi sommes sant nak parti yi nga xamanteni ne bi ñëpp ñëw nañ ci té di bëgg leen citer aussi ñep dégg ko muy le parti démocratique sénégalais muy le parti rewmi mi muy la coalition Sonko muy le parti CDR muy le grand parti muy Agir muy mouvement suqali njaareem muy mouvement ànd dooleel njaareem muy MPS jëf ak njariñ muy parti socialiste des valeurs muy la coalition Madické ñooñu ñëpp ak mouvement wallu njaareem di fukki parti ak mouvement ak ñett yoo xamante ne bi tey teew nañ fi seen teewaay nag li muy màndargaal mooy ne suñu jëlee tey baromètre ci élection présidentielle yi passé parti yi nga xamne ne ñoo fi daje tey ñoom majorité fi ci commune Diourbel lolu di lu ama am solo parce que suñu dajale won tay seen ay kaddu seen ay baat tay dinañ am 52 ci commune Diourbel kon nous sommes largement majoritaire lolu lu ama am solo la Santo aussi commune yi nga xamantene bi ñep ñew nañ tay représenter gox yi nga xamantene bi bii ñoo leen fi yabal muy commune Lappé muy commune Patar muy commune Ngoyé muy commune muy Toki muy ndank sen muy Touré Mbond muy Gadde Escale di Ndindi di keur Ngalgu ñi ñepp kenn ku ci nek ce représentant ñew na fi mo xam ci parti bu mu mënti doon jël fi kàddu ñu waxtane fi li nga xamantene bi moy suñu gis-gis ci non seulement évaluation wu élection yi passé mais tamit perspective yi nga xamantene bi mom mo nek ci suñu kanam lolu nak nekkon waxtan wu yaatu wu am solo wo xamantene bi kilifa yi fi nek yeb jël nañ ci waxtaanee nañ non seulement solos jataay bi mais xamle nañ aussi seen yéene ngir jataay bi ak façon ndaje yi ñu gën di ko dolli di ko di ko di ko yaatal ba nga xamante ne bii bu ñu demee ba ca kanam dinañu mën a am loo xamante ne bii lu ñuy wax alternative boo xam ne dinañ ko mën a teg peut-être ci loxol njaareem ak ci loxol yeneen communes yi parce que non seulement jataay bi li li muy liggéey ci commune bi la mais aussi ci département bi la donc fukki commune yi ak benn yi nga xam ñëw nañ fi aussi kenn ku ci nekk li nga xam ne moom lañ fi tënk ci waxtaan ak ci ay gis-gis bu demee daf koy rapporter foofu ñooñu aussi jël initiative yooyu ñu wëyal liggéey bi xaj na bu liggéey bi jeexee wala bu ñuy gën a dox di dem lu ñuy gën a dem ci kanam dinañ ci génne tënke ci euh, résolution yoo xamante ne bi dinañu mën a won fan la ñu jëm ak liggéey ban moo nekk ci suñu kanam te jataay la boo xam ne daal bëgg nañ di koy continuer won waa Njaareem won waa département bi ne amnañ une alternative bu taxaw ay responsable ay kilifa yo xamné ils sont bien préparés pour mën jël la relève pour jël dëkk bi jëmee ko ci benen djégo bo xamante bi bo boo bi soxla nañu ko. gestion municipale wala gestion gouvernement wala yeneen maanaam li nga doxale mu ne eh bu ñu bu ñu sonal di di bëri ñu indi coow coow coow coow benn yow ci meer la ñuy yem mais même bu ñu yemee ci meer